salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci buur Gueweul TV Lutte TV ak Dakar Actu ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar defoon nañ ko daaw fekkee déwén. Ah. demoon parcelle jàkkaarloo woon ak Lamine Samba ci opération bi nga xamante ne moom lay def chaque année ren nag mu déplacé affaire yi ñu ngi fi Géejawaay hôpital Dalal Jàmm moo tax ñu ñëw fii fas yéene waxtaan ak moom ci opération bi nga xamante ne daf koy def waaye waxtaan ak moom tamit ci tolluwaayu jamono comme ni ñu koy waxee rek comme ñun luñ tëgg rax ci përëm te làmb la ñuy wax danañ waxtaan tamit ci làmb. dese Jules Balde Junior dese yaayu Gaston ak combat yi nga xamante ne instant bi ñoo ngi koy wax moo koy seq nag ak buur géwal dama lay nuyu bàyyi la nga nuy ñu suivre site yi nga xamante ne instant bi ñoo la seet si ñu dem ci waxtaan bi maa ngi lay bu baax Lamine Samba. ok asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Hmm? gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonenteem bu sell bi Muhammadu Rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam noo sant réew mi yëpp nag réew mi yëpp dans plus grande majorité ñëpp nag ah, kilifa diine kilifa aada kilifa cosaan ñoo ngi sant ñëpp mais aussi tamit ñoo ngi sant su may mbokk bopp meen ak geño di sant képp koo xamante ne nii yaa ngi ci réew mi yaa ngi ci bitim réew ndax buur géwél TV bu ñu ko waxee mooy géwél bu bëgg boppam xam boppam am fu mu teg boppam ba créer yëfu boppam ñëpp xam fi mu jaar mu créer ko ci fula ak ci fayda nekk sama rakki bopp nekk boo xam ne dafay dafay faral di wax ni moo ma bëggal boppam déedéet man maa ko bëggal euh, sama bopp ndax dama gis ni ñeme na te xam ne fi mu jëm Lutte TV nag ni ko séq ñëpp laa la wax samay nit lañ ñi ko séq ñëpp waaye dama ci seppi Lamine rek au début yaakaaroon na ni man ku difficile la ndax pour mu amoon ci man interview sax da doon jafe mais bi ma demee ba miin ko ba ñeme ko lu mu bëgg ci man daf koy am ma koy encouragé di ko ñaanal jàmm euh, ànd nañ tukki ànd nañ def ay liggéey yu bari yoo xamante ni yoo dina ko boole ci anaalam tant tandis que Dakaractu moom daf fee daf yàgg ba pare du ñu coupé collé quoi xam nga loolu moo yàq àdduna bi léegi coupé collé nit ki wax ak yow 100 minutes nga génne ci benn 30 secondes bi nga xamante ni def na ci benn lapsus nga nga nga génne ko donc. may wax ni yéen a def people mais yéen gi traité aussi tam information bi ma leen di gërëm di leen sant Lamine wax nga dëgg defoon nañ ko daaw fekkee déwén yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ay déwén yu baree baree baree baree bare yàlla may ñu wér may ñu gudd fan surtout pandémie bi am ci àdduna yàlla na ko fi yàlla jëlee rawatina ci réewum Sénégal ci barke yonent Lamine toujours di montrer euh, la voie au jeunes mooy nekk chroniqueur warta mën a tere nga am com parce que Lamine souvent dañ koy gis même hormis opération tabaski Lamine na ngi jaay ay parfum Lamine na ngi jaay ay montre Lamine na ngi wane ay ñëw di ko jaay maanaam goût maanaam c'est de la réussite boobu la animé. Euh, dañuy wax ni njur am na solo trop jur am na solo trop waaye koo yar mu jël sa ko suma papa bi ma yar moom suma baay ñoo bokk ndey ak baay moo jàngal sama baay métier ba pare yar ma. yar ma nag ci commerce xanaa moom man quincaillerie laa gën a xam pontu ciment euh, euh, mâle femelle prise fiil moom moom laa gën a xam peinture man loolu laa gën a xam parce que dama ko jaay quatre-vingt-dix ba deux mille daanaka quincaillerie laa gën a xam sama baay boobu moo tàggat ma tuddee ko nag sama taaw mu tàggat ma ci commerce tàggat ma ci jom dama daan condamné wax naa dama daan condamné jënd ay ginaar cent franc ñëw di yar ginaar gi bu mu màgg nga jaayee ko sept cent foofu laa commencé ay commencé ay velo loué vélo jënd velo teggi moteur dama jënd teggi moteur jamono boobu teggi moteur mi ngi jaar mille cinq cent nga jënd teggi moteur dem di ko loué dajale condamné jënd manq dem boo tàmmee loolu doo tamm may ma sal waxuma kenn du ma may de dañ may may mais li ma jiital mooy liggéey daanaka li may def nii ci métier mi c'est la partie visible de l'iceberg mais yéen ñi ma xam ni xam nga ni man commerçant la au vrai sens du mot bu korite jotee maa ngi ci ginaar yi bu tamxarit jotee maa ngi ci nag yi bu tabaski jotee maa ngi ci xar yi en temps normal ma jaay jean jaay mbasin jaay montre jaay parfum euh, dans waaw ku ci nekk ak sa comme man dama nga baal ma comme man dama bëgg xaalis te journalisme mayewul xaalis damay wuti xaalis journalisme maye ah man de def naa ci vingt ans amuma xaalis man boog laa wax xaw ma yem ci éthique ak ak déontologie yem sa liggéey yem sa salaire daan naa dégg mag ñi di wax ni gàtt wërsëg kiiwul nga xam li ngay fayeeku par weer comme man dama bëgg xaalis te journaliste bu mayewul xaalis ah damay dem wuti xaalis am na solo daaw nga nekkoon fële parcelle lan moo war nga déplacé dafa xat sama ay nit ba pare euh, proximité bi BRT bi mu ngi jaar foofu ba pare xat bi aw ma woon sax xaw ma naka lañ ko wax cent cinquante mètres aw ma ko woon xat na kees ku lonaas bi mi ngi foofu banque bi mi ngi foofu kër yi ñu ngi foofu ñu nangu ñu bañ euh, danga leen di xatal te doo ko xam ma teel a ñëw ne xaaral ma ñëw samp fii wut autorisation ak mairie bi may fit ñii ñu bari parce que ki ma dendal nii doomu maire bi la. Aïda Sow Diawara député maire. Mm. moom it mu def affaire bu rafet ñu collaborer ci lépp foofu xat mais fii boo xoolee moo gën a yaatu moo gën a baax waxuma fee bon na de moo gën a yaatu moo gën a baax. Mm-hmm. loolu moom moo tax ma tànn fii. njaayam xar lan moo la ci dugal njaayam xar. man du ma éleveur bu bu mag nag mais éleveur laa dinañ mës a ànd ma am lu ma la wan ci àll bi am na ci ay ay xar yoo xamante ne tey boo ma si fayee millions yu bari duma la ko jaay parce que géniteur lañ Lamine maa ngi lay jox benn révélation bu garaaw peut-être éleveurs yi dañ koy xam da ngay dégg tey ñu ne buur géwél wala Lamine Lutti bi fay nañ ko 15 millions ci xaram wala cinq million ci xaram mu bañ ñi naan dof la dama la koy expliquer doful de xar mi da koy liggéeyal xar mun naa am quinze jabar xam nga lool soo amee benn maal bu baax boo xamante ni fay nañ la ci 15 millions nga bañ. bañ boobu nga bañ da ngaa doful de parce que tey boo amee 30 femelles teg fii 15 femelles teg fii 15 femelles ba ñu nekk en chaleur. nga jël maal bi dugal ko fi nga teg quinze élèves bu mu yéeg nga jàpp. bu mu yéeg nga jàpp nga génneewaat ko 15 jours mu ko waat nga yóbbu ko ci deuxième lot bi 15 yi am bu mu yéeg nga jàpp waa mais 30 yooyu yëpp bu ñu jàppee benn xar bu nekk da nga bëgg un million du 30 millions. xar moom ku la ko ku la ci fay 15 millions di ko jaay. doo ko jaay. du jëmm xar mi mais lim lay andil la. lim lay indil la yi xar yi dama lay jox exemple yàlla na ko yàlla may xéewal. yal na ko yàlla may liberté Serigne Fallou Luc Nicolaï yal na ko yàlla génnee ci fi mu nekk. Serigne Fallou Luc Nicolaï yal na ko yàlla génnee ci fi mu nekk. Serigne Fallou Luc Nicolaï yal na ko yàlla génnee ci fi mu nekk. moo ma waxal boppam ne ma Lamine ma ne ko naam mu ne mësumaa joxe xaalis avance lu dul ci ay xar. toog naa man. vergem boru laan ki tus à Mbour man Lamine Samba ma toog. muy jaay ay mbote yu juddoogul un million déggoo ma de ay mbote yu juddoogul un million mbaa yu juddu ba pare un million wala nit ñëw xam ni ay xaram jàpp nañu maanaam ëmb nañu nit avance ko xaalis bu buy wasin mu ñëw di ko jël di ko yóbbu mais mais Bour Gueweul multiplier li ma la wax amal cent mal astafurlah amal cinquante mal par exemple je te done un exemple amal cinquante femelles cinquante femelles ak ñetti mâle cinquante femelles yi bu nekk jural la benn doom te c'est rare laa dum yi ngay gis ni ñu jur benn doom c'est rare léeg-léeg ñu triplé léeg-léeg ñu quadruplé léeg-léeg sax ñu ñu am ay seex mais seex seede yàlla seex bu nekk nga euh, xar mu nekk nga jaay ko un million fois cinquante ñaata du cinquante millions moom moom ci jëmbi boppam moo may wax ne ma day jaay xar joxe avance te ñëpp xam nañu sëñ Fall li ko laay mësta tëgg événement bu ndaw ay événement yu mag lay tëgg. ah. mais buur géwél buur géwél maa ngi am envie mbéj la Modou Lo ak Ama Baldé ban combat moo ko dàq di wax ma ko amul. benn nekk ci biir kaso bi. combat bi du yegg. son fils lu mu mën mën lu mu aay aay aay lu mu bëgg. bëgg bëgg bëgg bëgg bàyyi geño la sa baay kenn du ko nëbb danc jant bi ngay tax tal bu mbaay ak rumbaay ak kaay ma sabar ak ma tëgg même wini ak lu mu jàmbaar jàmbaar jàmbaar jàmbaar fi mu nii à quatre-vingt-dix pour cent de son temps léppam ci baayam la koy concentré parce que mooy taawu baay ta taaw mooy baay mais est-ce que solidarité bi moom lamb waroon na def tey pour tirer ko d'affaire jàpp ngeen def nañu ko bu doon xeex la ñu dem xeexi hmm. bu doon jëli yat la ñu dem jëli yat waaye du loolu justice moo am ci réew mi danuy sàkku dañuy sàkku di ñaan ci président de la république ngir yàlla ak yonent bi mu mu gracier ko mën na ko c'est le chef suprême des armées mën na ko. mën na ko Lamine. président Macky Sall mën na ko. te gàtt gàtt gàtt Luc Nicolaï liggéeyal na ko. ci lu ma fekkee man. waaw liggéeyal na ko. liggéeyal na ko xam nga nu mu ko liggéeyale mm. da ko jàppale ba canaliser jeunesse bi. Mm-hmm. te ku canaliser làmb canaliser jeunesse bi canaliser nga réew mi. réew mi am na kaa ñu waxante dëgg. dëgg jamono bi nga xamante ne nii téyeguñu lit ñu ko laay. mooduloo Lo ak Ama taxaw. presse bi suu gras. Mm-hmm. gerte yi suu gras. Mm-hmm. borom madd yi suu gras képp ko romb ci réew mi loolu lay wax. Modou Lo Ama Balde Modou Lo Ama Balde jàpp nañu lig ñëpp ñëpp woo. combat bi tombé wul à l'eau heure bi lan lañ doon wax tey. ñu ngi ci fees Ama Balde nekk na roi des arènes. mbaa Modou Lo euh, jëlaat na ko conservé na ko kan la ñuy boole kii kan la ñuy boole kii kan la ñuy boole il a la lutte. Mm-hmm. Ama Balde ak Modou Lo lañu amoon Papa Sow ak Siteu. moom moo sauvé woon làmb ji sinon ñëpp jàppoon nañ làmb ji dee nag nañ leen waxante dëgg dëgg kenn du ko yërëm ñëpp ba looloo tax man ma daw ca rédaction ya delluwaat éthique ak déontologie delluwaat di def sama revue de presse delluwaat di def samay journal dama ragal parce que kat su ma amalul euh, njëriñ Youssou Ndour daf may dàq nañ wax lu leer yéen dangeen ngeen di contexte gis naa leen ci fecckat yeeg ci waykat yeeg ci dëggkat yeeg bu làmb amoon du ngeen ca dem nañ leen waxante dëgg bu actualité lamb amoon du ngeen ca dem wala boog du da ngeen koy relégué au second plan parce que du seen domaine domaine bi ñuy dund à cent pour cent mooy làmb làmb kese làmb rek làmb dong ba tax na ma jóg man tamit ah daal ne comme Youssou Ndour bi may jëli dafa ma ne dafa bëgg lu redresser làmb futur média ma nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa pandémie am su ma demul defi journal RFM demuma defi revue de presse TFM daf may dàq parce que du ma ko amul njëriñ te du ma nangu man mii Lamine Samb di toog di croiser les bras fenn maa ñu may fay waaw man kaa gañe amul foofu ay làmb bu làmb amee ma teg fi rédaction yi tàmm jiitu maanaam tàmm def lu mag boo ko tàmmee da gis nga Bourguel li ma lay wax nii du ay caaxaan bu Jamaïcain production tey tëggoon Gris Bordeaux ak Balla Gaye tëggaat Eumeu ak Bombardier coow li danaan kor ci dëkk bi mais Gaston dafa tàmm événement bu mag <laughs> c'est un maanaam bu doon sàcc la c'est un récidiviste ku miin bés yu mag la ku miin mbir la t'as vu gis nga stratégie bi mu def il très intelligent la revanche de Balla Gaye et de Eumeu Sène euh, le de et et de Gris Bordeaux parce que ñoom ñaar dañoo bëre ci goût d'inachevé ñu mu bëre mu neex mu naqadi même bu ñu joxee Balla Gaye victoire ay supporteram kontaanuñu woon Gris Bordeaux ay supporteram dañ ko meree parce que dañ ko ne Balla Gaye bi ñëw biñ gis a ah ba nga doon tudd ay poojam ak yooyu da nga ko waroon lem daan kon bu ko indiwaatee maanaam combat boobu njar la mu retenir Balla Gaye pour seeti euh, Boy Niang ëllëg ak si biir bu amee ndam est-ce que dina xool Boy Niang waaye bu amulee ndam ndam moom ak Boy Niang combat boobu amul kenn ku ko mën a moytu Gaston il est très dangereux léegi nag diggante Eumeu Sène ak Bombardier waa Pikine yëpp dañoo dajaloo woon bi Eumeu Sène ñàkkee couronne bi ci ci Modou dajale toog Eumeu Sène teg ko di ko waas dang ñu yàpp dang ñu lii dañu lii léegi ñun nu ñuy def mooy léegi booy bëreeti ñun dañuy cotiser ku nekk dajale feesal stade bi wane ni yow yaay leaderu Pikine léegi Pikine yow yaa bootu sa ginnaaw dootoo jëlati combat dootoo saax saaxayti suñu combat waa Pikine ñoo wax loolu ëmb seen taaj ko ma jox la exclusivité boobu ba loolu amee mu am ndam ci kaw Bombardier jëlaat Bombardier dafa bëgg wan waa Pikine ni man ba man Eumeu seen daan bi ma daanoon Bombardier tanduwuma ko da tanduwuma ko dama leen bëgg am lu ma leen wan lu ko may ma dem retraite déggoo ma de non waxuma lamba leen di bàyyi waay waaw burkeel jox ma nopp bu baax bi lamba leen di bàyyi Bombardier deux ans ko dese mm. Bombardier bu daanee Eumeu Sène ak bu ko Eumeu Sène daanee lan lan lan lay jëriñaat lamb bu rewaatee beneen combat retraité bu ko Eumeu Sène daanee mu anticiper retraite du bàyyi lamb de lamba koy bàyyi Eumeu Sène nit bu fekkee ni am na ndam roi des arènes fu mu nekk dana ko seetiwaat jàppal li ma fu mu nekk dana ko seetiwaat mais bu fekkee ni yàlla def na amul ndam làmba koy bàyyi du bàyyi làmb kon am na lu mu bëgg woon waa Pikine am na lu mu bëgg woon waa parce que imaginel daanu ci daanu ci Modou Lo avec jël bi ko Modou Lo daan nga avec la manière nga delluwaat damay am na lu mu bëgg woon waa am na lu mu bëgg woon waa de attention Bombardier it bëgg na sortir par la grande porte parce que humiliation bi ñu ko humilier bi ko euh, Eumeu Sène humilier da koo metti bëgg na sortir par la grande porte kon Gaston li mu def xam na ko de promotion bi bu jógee pandémie bi jóge fi ci kattanu yàlla ñu fekkee ko ak jàmm combat Bombardier ak Eumeu Sène benn combat du ko dàq ci enjeu ci xaalis ci mobilisation ci am na ñoo xam ne dañuy ñëw xooli euh, Eumeu Sène nan lay retraité jee mbaa Bombardier nan lay retraité jee kay ma wax la ñaar nag. ñu bari nit Boy Niang moo doon moo doon laaj Balla topp na ko presque deux ans wala trois ans ñu fay ko cinquante cinq millions mu ne du ko jël yow lan nga ci gis. Eh. dafa waroon a jël wala waru ko woon eh. Eh. déglu ma bu baax booy Niang doful ay mbokkam dofuñu dopporaluñu dama bëgg nga dox ma nopp bu baax. ñetti mbër nii ku leen di jël te amoo ay mbokk amoo ay sëriñ bu yeboo nga fabu banqal sa baaraam Modou Lo banqal sa baaraam Balla gay banqal sa baaraam Eumeu seen promoteur bu leen fay cent millions dinañ ci teg deux cent millions dugg ci seen i mbokk ndama leen gënal lu ñu am ndam moo leen gënal lu ñu am ci àdduna révélation laa lay jox Balla Gaye numéro 2 somme bi mu dépensé bi muy daan Yékini kuñ ko wax nga weddi ko ci àdduna moo tax mu ne am na ay événement yoo xam ne benn yoon lay am ci àdduna ci xarlu ci àdduna mooy Balla Gaye Yékini benn yoon lay am ci àdduna say mbokk duñ nelaw say am di jàmm duñu nelaw sa poos du ko fekkee Double Less bu nelawee ka saalika naka noonu rek ñu def ko ko eh Boy Niang a raison sur toute la ligne Balla Gaye numéro deux cinquante millions préparé wu ko oh, oh. yow man yow man li ma lay wax dama li may Balla gay numéro de boo ko jëlee ci cinquante millions dootoo ko defati foo séenatee cinquante millions daw ma ne la buñ ko fayee quatre-vingt-dix million ñoom déggoo ak waa Pikine dinañ wuti yeneen cent teg ko ci muy cent quatre-vingt-dix millions ñu dugg ci dëkk bi. Balla Gaye ne badine pas avec le mystique. Aziz Ndiaye rek mu dugg Guinée Bissau Conakry rek montagne ñoom Baye Ndiaye jaar na le Boy Niang a raison sur toute la ligne et je te félicite aussi. jërëjëf Lamine ñu bàyyi la nga tàggoo tàggaay rek da nga sa bopp waaye yow. Balla Gaye Lamine man bu ma doon mbër du ma jël Balla Gaye du ma jël Modou Lo du ma jël Eumeu Sène lu dul ci 600 millions boo nelawee xam. 55 millions daal daanu daanu Balla. Ah? mën naa daan Balla parce que daan ak daanu yàllaa ko yor waaye préparé Balla ci 55 millions doxal da ngay gis yeeg ke baara ngay kilim ewel mu gestu rek jox ko 100 millions ne ko demal. demal defaru ji Aziz génnee 100 millions ne ko demal defaru ji. saa ah, semaine affaire géej waay la moo la mu ñu bàyyi la nga tàggoo bége ziyaare leen ñaanal leen jàmm ñaanal leen sot ngeen nag dañuy ñuy wax sot quoi solidarité de corps confraternité loolu ngeen jàpp seen naatangoo ngi dugg ci benn affaire ngeen xaaral ma jàppale ko waaye maa ngi gërëm sama rakk ji ngañ dem mooy mooy kii wat star yi ngañ bu Balla Gaye place bii bu ma fi toogee yàlla ak moom la moom moo ma ko lijjantil Hmm? te bëggul ku ko wax ma koy sant bu wér a wér di sant suñu sang bi Dimera di ko sant di sant Mass Boga Mass kaay di sant Mass Boga bu baax a baax a baax dama bëgg ci ñaari kaddu rek parce que dafa am ay autorités yu nekk ci réew mi may gërëm monsieur le maire ngañ Diop bu Bambilor lim fi jënd ci ay xar maye ko kenn xamul nu mu toll alaaji Pape Mayel Diop borom ndakaaru astafirullah la ilaha illallah ak kaw weer li mu jënd ci xar kenn xamul nu mu toll mam booy jaawoo que saalika ko noonu te dañ koy mayewaat alin Sall mi ngi ñëw ak ay nit yoo xamante ne baara gay kiling ewel jënd fi ah waaw Pape Diop ak indi seen rakk Dame Diop ñooñu ñëpp ne fi ma di sant di leen gërëm mais maas boogaa lu mu lëndëm lëndëm lëndëm bukki forbey te dimbal leen ma liibu leen ko dakk kii kii yal na ko yàlla jàppale léppam la bàyyi jamono ji ndax man jël ay xaram seeyal ko ci sama biir yi xar di ci jàpp te yàlla tax moom moo lay présenté nag daral ji wax la xeetu xar yi fi ne ak dundu géeg yooyu parce que man ak moom la may gërëm nag sama mbokk yëpp di sant sama mbokk yëpp toog bi ma toog fii du damaa bàyyi samay mbokku de na leer na leer nag parce que unité Toura laa doon samp sama bâche at mu nekk mais dafa xat BRT baa ngi fay jaar te dafa xat ma leen di gërëm ci at yiñ ma yaatal foofu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm na leer nag na leer de bàyyiwu ma samay mbokk maag samay mbokk ñooy liggéey ba tey maas jërëjëf Nango di wax ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sang-sang yi sant sunu sëriñ sunu maam si la sunu maam Cheikh na Cheikh Saad Bou di sant sama bunt si kër Cheikh na Cheikh Saad Bou muy waa kër Cheikh Mouhamad Jimbira ñu toog nii sama ginnaaw di sàkku ci ñoom ñaan di sàkku waaleel ñëpp ñaan ah, buur Lamine wax na lépp tëj na lépp ndax da ngeen a wax ci làmb ji daanu ci si xar yi moo ne wàccu leen yoon wi benn yoon ndax bu ñu jógee ci làmb ji ci xar yi lan ñëw te bu ñu jógee ci xar yi ci làmb ji lan jëm kon sotti ceeg def ci la waaye fii la lépp di xewee xam nga daana wax filo mburu mu tàng mee xoyam xoyam ak fi la xewee ay jongante yépp waaye baasub ren bii dinaa la wan xeeti xeeti qualité xar yoo xam ne sii yow ba nga dalee di jël xar ba léegi jëloo xar yu ni mel mosoo gis xar mu seex ñetti yoon doom ya màgg ba maase fii xar mu seex am ñetti doom am na fi doom yi ñu leen di yar ban mat ñaari at ñu indi leen ci baas bi suñ kanamee naa la ko présenté loolu musul am ndax xar bu amee ñetti doom en général benn bi day dee waaye macha allah xar bu am ñetti doom doom yi di dem ba doom ñoom ñetti ñëpp màgg ñu génneen doo leen yóbbu leen di leen jaay yal na leen yàlla lafal cat ban jaraj kon daal fii lu waay am ah, ah di nga mën a am xar incha allahu rabbi ci kattanu suñu borom ndax Lamine ren dafa def def maa fi def doma daa def yaasa def ceebu jën def laaxu na tëri def nga lax ci wet maanaam boo bëggee dégg-dégg Lamine nee na tey day jaay kilifa yi jaay yamambaay yi jaayaale néew di doole yi